Dakar

ñu xumbal dàbbali muy saf ñu may ñi nga xam ni ah, ñoom ñooy ambianceurs yi may ñi bongo may ñi yor ay bool may rek ñëpp ñoo xam dañuy yëngu ci aar may xam ni seen chance parce que xam nañ ni corona bee tënk ñëpp ñu ne Dakar ne sort plus à partir de 21h waaye man ma ni Dakar ne dort plus à partir de 21h ngeen ànd ak la télévision Futur Média ñu accompagner leen fu waay mën a nekk rek ñu bëgg laa bégal ngeen kontaan tey tamit comme ni ñu koy defee comme samedi ak dimanche bi am na ñaari groupe yoo xam ni ñoom itamit ñu ngi ñëw kenn ki day def première partie keneen ki ñëw beneen partie bi nu ambiance ànd ak Mamran ak ki nga xam ne mooy moom ñu ni tamit euh, xumbal ah daal di leen wéttali ci fi nga xam ni fa ngeen a nekk ci seen i kër di leen kontaane waat encore une fois léegi nag tey tabaarkàlla ma ci nuyu sama xarit ba mbay mbay ma nga ca Istanbul mbay borom teranga shop maa ngi lay bégee mbay borom Turquie maa ngi lay kontaane ci vest bi nga xam ne moom nga def sama waa ji kenn du yow ci suuf gi ba tey am di tuus am di Colobane ah am di chéri Kenzaak euh, Bayou Baye Niass am di maa ngi lay bégee bu baax am di am di ma nga Colobane kii Samba yow xam nga am di <laughs> wallaay ku baax sama xarit la ku baax ku mën teraanga Pape Samba am dalay da lay defal teranga ba ngay defalaate ay teranga yàlla na jàmmam yàgg tabarkàlla ay joor la Pape Samba ay joor la joor gi masol sol nii am na sax ci poos bi xoola Pape Samba jël ko jël poos bi waaw ah, <laughs> ah, ah, yi dañ naan la am na marché joor ak li nga xam ne mooy joor ba nekk Amérique bii joor ba ne Amérique la tabarkàlla mbay euh, mbay mooy borom Sambul maa ngi lay bëggee bu baax a baax waaw dañoo teel a tàng bàyyi leen leen bàyyi leen leen seen yaram dafa teel a tàng ñi waa yëmbal lañu tabarkàlla bu ñu nee der ngeen xam ne ay ndaanaan ñëw na installé wu leen rek ndax dal leen ay yëfi abaa la mënta sedd sama yëf la ay te toog leen dal leen ngeen tàmmal leen liñ tàmmal ñëpp na xar yi ñëw ngeen jox leen ay tee balaa ñuy way jox leen ay boisson ak ay ndox ñu naan waaw liñ tàmmal ñëpp waaw tàmm waaw <laughs> waaw waaw Samba waaw yi ñëw yëpp jox leen leen xar yi nu mis na ñëw mu ñu pare ngeen jox leen ay teew ak lépp waaw na lépp waa kay waa kay waa waa ki indi xar yi ñëw na waaw kay nañ lekk ba noppi le temps ñuy dem xooli li nga xam ne xewoon na ca Bercy Youssou Ndour ànd ak ki nga xam ne mooy Viviane ñu daal di ciy way amitié way wu am solo amitié way wu neex woo xam ni ñu daal di ciy nag sama benn grand sama xarit boo xam ne ma nga jëta ngeej mu Ndiaye Cissé chéri li sa mbay wax naa ni borom ONG 3D nañu xool loolu te ñëwaat léegi-léegi Bercy la xewe woon ambiance ak ki nga xam ne mooy Youssou ma jigéen ak Viviane ay ci amitié Eh, kii awti dëkk yëmbal moom moom laa faral moom mi waaw ñun yëmbal la ñu dëkk da ngay romb caaray dem ba yëmbal ñun foofu lañu ñu dëkk léegi nag dafa am benn émission boo xam ni du man naa ko nam mais réew mi ñoom ñoo ko nam dafa am émission boo xam ni Ndiaga Ndour Sénégal yëpp nee nañ Abba Show kañ lay amaat donc comme Abba Show amaatagul te am naa occasion ci Dakar ne dort plus kenn nelawul ñëpp a ngi seetaan xaaral ma def benn bu dee ñu ngi en live ma def ab euh, kii mas ma kii ma seetlu xool leen nan sonde nan sondage ma xool ba xam lan la ñuy wax ndax euh, ñu euh, organiser Abba Show waaw wala déet parce que réew mi stressé nañu réew mi bëgg nañu reetaan réew mi na nam nañu ay reetaan donc bàyyi ñu xool ba xam bu ñu ma demee suñuy page moo xam ma dem YouTube moo xam ma dem Instagram moo xam ma dem Facebook ndax fépp ñu ngi fay nekk en live ma xool lan la internet yi di wax ba xam ñu def abatio waaw wala déet parce que dëkk bi bari na stress dëkk bi euh, nit ñi bari euh, stress nañu daal ñi euh, xaalis amatul mm, tabaarkàlla réew mi daal réew mi daal nañu xool bu fekkee ñu ngi ci yéen xool leen ba xam ñu organiser waaw wala déet bu ngeen ne waaw ñu organiser bu ngeen nee déet duñu organiser maa ngi fa léegi maa ngi Facebook maa ngi Facebook xaaral ma xool ñu ne ci Facebook bi lan la ñu wax ñu orgi aba euh, nan nan def waaw waaw waaw na aba ndee bu dee waaw rek ñu def waaw yi bu matee bu amee cinquante waaw rek ñu def ay ca cinquante waaw Morlo nee na waaw Fama Mbodj nee na waaw Aji Binta Ndiaye waaw comme ah, ah, Pape Samba àdduna ngi noonu taale boo taal télé boo taal <laughs> ña ngay abasoo abasoolu yàlla na jàmm yàgg <laughs> moo tax booy def na nga def lu baax ndax xale yi lay toppandoo tax ah, kala nañ ñuy def lu baax rek fu ñu toll mm, Adama Seen nee na waaw ah, Baye Fall bi Seck nee na waaw Nabou Kan nee na waaw wax leen waaw Arona Sow nee na waaw indi leen seeni waaw ma xool même ku ne déet dinaa ni kii nee na déet ñi ne waaw ma ni waaw ñi ne déet ma ni déet bien suur bégal ñu loo ñu bégal doyul Astudia moo wax loolu waaye Bintu Bintu Fama fay nee na Aba yow da war di ñu bégal foo toll Maawo Mbay ah Serigne Niass xale yi bind leen xale yi bind leen ma jàllale xale yi bind leen ñi bëgg Abba Show am bind leen yéen laay xaar seen message bind leen mu ñëw Pape Samba bu may wëlbatiku dee ma jëlaale may wëlbatiku ah Pape Samba boo may jël dee ma jë te <laughs> xam ni nga may jëlee tabaarkàlla Pape Samba dee ma jël may wëlbatiku nga may jëlaale. nga may <laughs> dee ma jël fu ne Pape Samb dee ma jël fu ne ay te nan yeggali ma xool xale yi ñoom Fallou Cissokho mm, ñoom Fatma Ndiaye ñoom Baro Lincoln ah ñoom uh, Mor Samb Talibé Bamba ñëpp rek xale yi Ousmane ñëw leen xale yi ma xool ñëw leen Pape Samb na xale yi ñëw na ñëw ma xool ba xam bëgg nañ Abba Show bi namm nañ ko ak kañ lañ ko bëgg kañ lañ koy tourner naka lañ koy tourner à huis clos wala ñu def vingt cinq invité cinquante invité cent invité ñaata lañ koy def ah Pape Samba non wan la wan la ak joor yi nekk Pape Samba xoolal li Pape Samba xoolal li donc donc loolu laa lay wax donc lii laa lay wan ah waaw waaw waaw quand même lii laa lay ah, bi la la moo ko waral tur ñoo may xoolal rek mu ngi feeñ oh, oh nan fii ah fii ah <laughs> waaw yàlla na jàmm yàgg ayca mu ngi doon donc wax leen bu ngeen ko bëggee rek dañ koy def Abba Show bu ngeen ko bëggee dañ koy def mais le temps ñuy organiser Abba Show ngeen continuer di wax est-ce que bëgg ngeen ko waaw wala déet dañ leen may benn extrait ci Abba ñu xool ko laataa ñuy commencer émission Dakar ne dort plus waaye nag yéen ñi presté ku ñaan rek tàllal sama loxo rek dimbali ma nga arrêté tey minuit waruma fekk ci plateau bi suba a xëy 7 heures dem liggéeyi bu ma leen ñaanee rek may leen na benn orchestre bu a na dagan mais lépp ci temps nañu dem xooli extrait Abba Show te ñëwaat léegi ci plateau Dakar ne dort plus war a commencé nag émission bi Dakar ne dort plus mais extrait Abba Show ñëwaat ajje Pape Samba nañ dem si vous êtes bien je suis bon donc avant sëñ bi ngeen tàccu leen bu baax a baax a a a saway mënoo nga di baax na salaamaaleykum baal ma téen góor gi eh. waaw kay góor gi nee na ah àdduna kenn xamul wallaay wallaay góor gi li kenn waaw <laughs> góor gi nee na ah àdduna kenn xamul góor gi eh, expliqué nu góor gi nee na ah. àdduna wóoratul àdduna kenn xamul góor gi expliqué nu góor gi nee na àdduna wóoratul góor nu waaw ma expliqué leen ay samba ma ne ko déggal loolu góor gi fayda góor gi cëg bonam nee yéen ñi nga xam ni yéen a yëkkati seen tànk ndeyjoor teg yëkkati càmmooñ teg jël seen taat teg ci sees ngeen ibbi seen nopp déglu mu expliqué leen mm. góor gi loo teg ah néew ma kenn te bu ma kenn fay déggal leen gën a bàkk perek ma ñàkk sama ndey da koy defanteeg yéen ba mu sax fay leen ko góor gi loo teg Eh, nit loo xamante ni génn na fi ci kàddu. waaw man mii maa ko wax. jëm chance de la responsabilité. Mm-hmm. nee kàddu yi ngeen dégg mu jëpp rek moo ko wax te moo tay ba tayaatoo te sax xanaa war ngeen a war ngeen a jàng boo tayee euh, euh, yooyu yëpp di ci am. waaw ah, góor gi loo teg. mais képp loo xam ne am na lenn loo ci yëkkati. waaw ah. laaju ma la ko nga képp. jëm. boola na ñaari fo yu ngeen miin ne kàddu yi ci jib rek moo ko wax te keneen ku ci wax leneen laaju la ko laajaatu la ko tereet mbaam yóbbaale ko taata maam yamu ca mu ne ngeen kepp li ngeen moom te xanaa war ngeen fowe catégorie keppa Nemza keppal nous désirons keppal au nom de yi keppal yéen ñi to kepp leen seen bi keppatiku nke potiku ndeke potiku loo teg waa loolu jéggal loolu waa waa waaw waaw ak am fula dégg ngeen de gi doo ko leeral waaw. toogaay moom. waaw. non na lay demee. noonu. jàng yi. jàng yi. non na la ma ci nee jarul mu koy bamtuwaat. jarul mu koy wax wax ji di bëriwaat. nee jàng na mu amee daaw. nee ren jii noonu lay amee te. jàngi daaw ay saaga ndaya ko yàqoon. ku ne saaga jëm fu ne. ren jàngam yi responsabilité ku ci saaga ku ne dinaa loo teg góor gi loo eh. hmm? teg. Ah. ñoom am nañ mochi blanc. Ah. am mosu noir. ñoo lay toppandoo. man ma yor mosu vert. ah ak jaune. ah ak rouge. Ah. ak tuuti vert. waay ndaw Samba. déggal loolu. xanaa yaa drapeau Sénégal. yaa drapeau Sénégal ñi lay toppandoo naan am nanu masi blanc ak masi noir ak masi rouge ak masi métan yow yaa yor drapeau Sénégal yaa yor masi arc en ciel yow yaa yor masi drapeau Afrique du Sud yaa yor masi Gambie yaa yor masi bu mat sëkk masi góor gi loo teg. waaw waaw waaw. fi ma jaar. waaw. fi ma jaar. fi nga jaar. noo tax ma ni. moo tax nga man man naa ci bii man naa ci bii boo. yoo léeg gudu gudu yoo wele kon mën naa ci bii mën naa ci bee am na solo hmm. am na solo am na solo tabaarikàlla kàddu yi nag hmm. defe naa hmm. leer na sëñ bi wax na fa mu mëne muy ci leer ak ci lëndëm moo ci mëne muy ci guddi ak ci bëccëg moo ci mëne muy ci kaw ak ci sëñ bi loo teg. juumoo. ah juumoo. waaw juumoo. waaw. waaw. loolu. ah. gàmmu gi moom. waaw. cere ji moom. cere ji. noonu rek lay demee. tubaarkàlla. ku joxe cent mille. waaw. ñu tibbal la boolu cere. boolu cere. defal la ci ñeex. ñeex tegal la ci ndaw. ndawal ak kaasu meew. ak meew. tubaarkàlla. déggal loolu góor gi ne. yow mi yàlla cërale. nga jël ñaar fukki junni ni ko góor gi damaa ñëw sa jànge waaye damaa bëgg sa cere yi booy ñëw indi bool nee boo ko joxee dina la defal cere ñu ne déet na waaye mu defal la ca ñeex ñu ne déet na waaye mu defal la ca ndawal ñu ne déet la ca meew sëñ bi loo teg ku joxe fukki junni fukki junni cinquante mille cinquante mille jox la cere cere ñeex ñeex ndawal meew doo ko am la déggal loolu nee yow mi sunu borom teral nga ñaar fukki junni mott jàpp la nga xaaj ko indi fukki junni bi ñëwal indi bool nee boo eggsee dinañ ñu ne dinañ defal la ca ñeex ñu ne dinañ la ca ndool la ca defal meew loo teg eh, ni nii ah. Eh, tey indi vingt cinq mille. vingt cinq mille. mbala cere. cere ñeex. moom defe naa ni leer na. loolu moom defe na juróomi junni moom boo cere ñeex nga doom dawul doom meew loo ana ñaa day indi dix loolu yabaate la dix ñaari junni ñu jox la cere kepp kese rek bon waaw ah. kon nag leer na jarul may wax ni cere càq la te jarul ngay indi bool na ngay indi mbuus waa kay ñu loo teg waaw ci ah. leen dugg ci eh, ndaw Samba déggal loolu hmm. ñàkk fayda ñàkk fulam xajeem tax na nee ngeen ubbi seen nopp yi déglu mu baaxee leen tooti ci baatam bu neex bi góor gi loo teg lu xeeñ a xeeñ lu xeeñ a xeeñ eh sëñ bi eh lu xeeñ a xeeñ maa eh ko fi indi waay fatal baka lu xeeñ a xeeñ lu xeeñ a xeeñ yaa ko fi indi mu waay fatal bakkan da ngeen ciy ànd lu xeeñ a xeeñ lu xeeñ a xeeñ góor gi xeeñ a xeeñ yaa ko fi indi fatal bakkan ata yor xet ne kii xetama bon kii xet bu la rombee ni foos xet kii daa maa loo teg ah ni waaw dañoo ñëw te dee góor waaw nañ dem ca ginnaaw ginnaaw mën na ah waaw waaw loolu moom loolu moom da nga cay yéex a jóg góor gi toogaay yi ci baas bi désordonné na ne yow mi nga xamante ni yaa déplacé wu sa kër dara yëkkati wu la lu du fekke jàngam yi nga ñëw doon góor mënoon nga sax ba a ñëw waaye gannaaw ñëw nga ba pare na nga dem ca gannaaw ne nga toog fa soxla wu la loolu moom da koo yéex a wax. nee nii. waaw. ay jigéen lañ. jigéen. sor grand boobu mel ni meer. mel ni meer. musu muuru. waaw nañ toog ci si si ca ginnaaw. jaxaat ca wetu góor ña. nee na yow mi yàlla cërale nga doon jigéen. doon nga ma taaru lool. amoo looy def lu dul di sol grand bu di mel ni meer. ñooy dee na waaye nga tagal ko ba ca kaw. nee boo yegsee jarum nga koy jege na nga taxaw ca wetu góor ña ca fële ca xaj. loo teg. un soleil tabaas. tabaas. taay baas taay baas taay baas baax na. pàccal ko mooy. ba ca kaw. nañ toog ci digg bi nii. cam. ma ne ko cagaa ngi bëgg a xeeñ nag. ne yow mi jóge sa kër. doon jox dëgg de wax na dëgg li c'est euh, li li kilifa gi laaj euh, sunu góor gi li mu laaj tabarkàlla loolu ku ko laaj dañ lay wax li nga xam ne moom lañ ko wax waaye yaakaar naa ni tabarkàlla ndaanaan li ñëw na euh, maam dafa jaar fam doon jaar waaw loolu noonu la mel waaw <laughs> loolay jikkoom luñ ko waxal mooma ah. na ngeen def moom yi sant nañ baax Abba maa ngi lay nuyu yéen a ngi am jàmm ñu ngi am jàmm baax maam jaara lay nuyu tey wala tey waa tey nday faatu ngay nuyu jéem nday faatu lay nuyu waat moo ñëw dem mu ñëwaat tey wala. déedéet déedéet démb démb démb kii la woon. eh macha allah macha allah. tey nag moom. ndey ah, faatu la appel bee dem de ñu ngay wuy si de. ndey faatu waaw waaw ñu ngay wuy si de. waaw abba <laughs> maa seete nga di a catu. <laughs> waaw waaw balaa xam fi ne da ngaa gaaw. ndànk rek méttiwut. <laughs> maa ngi lay seet ma benn problème. Ah, waaw maa ngi lay seet abba nuyu naa la sama bopp. Ah, waaw waaw waaw ba tey yëpp mën a. waaw nuyu maam raan maam raan maa ngi koy nuyu maa maa ngi koy nuyu. bu ñëwee rek ak déedéet moom la sa doom ji nopp. ah ah ah, ah la yàlla dogal. déedéet nangul dogal bi. Abba ah, baay bëgguma problème. maa bëgguma tey sax ñëwul dama koo tere. indi woo ko tey. déedéet tey ku baa ñëw surtout yar bu kumbel bi ñëw tey. ah yaa xale bi ànd. tey ñoo ànd tey ñëw. waaye muumi xanaa yow da ngaa yor poulailler wala dara. a ah, poulailler. <laughs> muumi xale yi muumi sa kër li nga fay yar. li ngay gàng lii. abaa nit li woo ma pulaay yi yàlla jur jàmm. pulaay ginaar laa ci xam. ay yow eh. eh yaa ngi ku sëtub yàlla bu kumbel bi. ay la baabu kumbel. sal ni Mamadou tubarkalla sama doom bi ñëw tey. joor daa toog tey. yéen seen alimentation macha allah. ah dégg nga dégg nga xale yi ah moo jug kay sànq ma naan ko dewal woon ma. moo jug daan may woo. moo jug waaw ba tey surtout kër yal bu laa nekk ba tey. kër yal bu nekk ba tey. am nuyu naa waa golfu. Mm-hmm. maa ngi nuyu tubaarkàlla sama fan si waa TikTok waa Instagram nuyu naa leen. dëgg la tubaarkàlla fu ma agréé yéen a ma fa aggal yàlla ma leen yàlla fayal rawatina waa TikTok. Mm-hmm. waa Facebook ñëpp maa ngi leen di nuyu. Mm-hmm. abaa dem ba njaareem di nuyu sama yaay Mbengue Ndiaga Samba tubaarkàlla ma nga toog di ma seetaan nelawul benn yoon njaareem kenn nelawul ndax kan seen doom ji toog abba bu loolu passé ma dugg golf gi nga xam ne tubaarkàlla bañ ma ko yakkale dañ maa téye ndax ginaar yi ñu njoñ la tubaarkàlla ah, yooyu yëpp ci nuyooyu la abba waa golf maa ngi leen nuyu nee naa a ngi may séen la baa a <laughs> ah, bu ba paree dem Touba dugg nag tubaarkàlla eh, Touba eh, bu yàkkamti de hmm? jël sa temps ah, nga nuyoo ba pare ba pare nga tàggoo <laughs> tàggoo dem ankay ankay jëlee sa temps. Ah, jëlee sa temps yaa ngi Touba yaa ngi biir Touba waaw ma dugg Touba. tubarkalla samp fa nag nuyu fa sama sëriñ ba say Sidi Mokhtar Mbacke tubarkalla maa mang lay ñaanal yàlla na yàlla yokk sa leer taaw mhm. sa barke ndax kooku su may wax ci ma abbas sama xol day tooy ndax fa ma jëlee fa ma jëmee ko gën balay sa heure bu ma ko masaan ziyaara rek su ma joxee noppam dee joorom bi nga xam ne tubarkàlla sëñ bambacce ne tuf rek sama xol daal di na yàlla ngi koy ñaanal yàlla na ko Serigne Touba ak Serigne Saliou Mbacke bi nga xam ne moo ko ne woon dewal ba ca jannatul maxwaa ca wetu Cheikh Béthio daggal ko fa tubarkàlla ñaari kër yu na mene mu réegu fa toog tubarkalla njabootam gépp toog fa ba kër muy wujji sëñ Bamba mm. kon ñun su ma duggee Touba war na maa nuyu tamit ah, tubarkalla masàllaa mbenn Fall mm. Fall njaga yaaram ki nga xam ne nag la mooy mooy ki nga xam ne sama xarita mm -hmm. di sëtu Seybra Fall -hmm. mbenn nuyu naa la Fall -hmm. di nuyu Ndey Jeng ki nga xam ne tamit moom tam ak Ndéela Juuf birima kumba yaasin njaar ba ko sama be ma demba yaasin ndaw ma de bakk ci kumba bi rek lakkin nga ci loofi buntub taamal waaye si fay maa ngi lay nuyu hmm. maam jaara maa ngi lay nuyu sama doom yooyu nga xam ne seen baay ba téerére rek la jooy seen baay mooy sama taw am na ko nuyu démb eh, ki ki nga xam ne moo ñu indil ñaari étage ba noppi daal di indi teg ko ne xale yi kaay leen ndaag la ay abba bi ma woowee tey yee dëkk bi yëngu ah dama ko ne doxal dox ba kenn laal la ma xëpp la taal woowaat nañu tey ma nga ca borom woowaat na ma tey. tey woowaat nañu la avant may génn la ma woo ne ma tëddaguma ndax tukki. moom yi ah. ndax tey woowaat nañu la. waaw woowaat na ma baax na abba woowaat na ma de. Ah, na ma de dama laa xam abba woowaat na ma. <laughs> léegi ndaak ndaak. Eh, ana papa Jean eh, da ngaa jël sa yoonu bopp da ngaa changé balaa ma daan toog fii da ngay defar kaasu café ne ma am téel ba ma woowee la sama cafétéria waaye comme danga ngaa ceeñ ci damay bëgg ñii nekk fële di orchestre bu ma leen dee jox rek bu jëlee dañ naan der nu ambiance ba ca kanam doog waxtaan mu yi bu noppee rek euh, ñun ñun daal di koy jox euh, li nga xam ne mooy kàddu gi bisimilah bu ngeen noppee rek man noppi naa tabaarkàlla beneen muumee ñëw tey ah Momy Seck tey moo ñëw dëkk caaro yi ànd ak orchestre bu doy waar waaw Momy nag ma ma fay seen bay seen loo bëgg waaw seen naa fa bool waaw waaw seen fa ay paan billahi seen naa fa siwo laa ma bëgg seen fay bongo waaw ma nga fa tabaarkàlla hmm. waaye si siwo bi ay waay kii moo bari wërsëg siwo lan la ban lii lan la siwo bëer wala meew <laughs> mais meewum lan la laay kii du sponsor de. Ah, ah, ah, ma ngay feeñ waaye xam nga paan bi day bokk siwo. wan ma meew mi. <laughs> waaw wërsëgëm la. waaw wërsëgëm la ñëw sax Sadida la. <laughs> ah moom it Sadida la. Sadida la Saasam la. Sadida la Sadida la. Sadida la ma nga ca Sénico. tubarkalla Ablaye Jamu baax mi. Ablaye Jamu baax mi ñoom Aida. borom yaay ju baax mi wërsëgam la. ak sëñ Fallou wërsëgam la day ñëw wërsëgam la wërsëgam la. waaw waaw waaw ñu ngi leen di nuyu. waaw waaw ah Sadida ñu ngi leen di nuyu ayca. waaw Sadida waaw Sadida mu bi nan dem seen saas la. lii kum dawul yaramul sa yaram du daw dawul seen saas la ayca. karim borom makaarimal axlaa yaa nday mbaw yaa nday mbaw sama waaj sëñ Fallou barke borom Touba waaye tabarkalla nuyoo am solo borom dindi la tijjee laa ilaha illallah moomi mi mm. daa naan la kulli faddi pire yow da mat naka la tudde dafa mat mm. tudd moomi yombul de tey sunu bàjjen ba soxna moomi mu Cheikh Abdou borom dër bi eh. Eh. soxna Maguette Gaye yaayam eh. oh. mbokkum yaayam soxna Baali Muntaqa waaw kooku la sëriñ Muntaxa bàkk bàkk wu rëy yu bari ki démb ne ko gërëm naa la eh. mbàkke yàlla na fi yàgg te wér amiin barke Seexu rafet kun ko tuddee day rafet eh, déggal eh, loolu man sax maa ci xaw a ñaaw te ñaaw. ñaawoo ñaawoo de ñaawoo da ngaa jóg ma ay jë mu mi tabarkàlla ka mu eh, am na solo waaye ka mu ubbee ñëpp xam nañ ñi bàyyam mooy bàyyi basak baara maami jon ak Cheikh Mbacke waaja demoon Gabon dem wiir wiir dem maa yombéeg la bëri willi ba ko tubaab ba convoqué mhm. bur yàlla da koo dee ca Mbacke naan ko da ngay waaja tukki faw ilaa narbin Mbacke eh. mu woolu sama yaakaar mu ñëw maam Thierno Ibra Faati bàyyi aw ball ak rakk la rëkk la boro mbax na cur cat ja eh. na mbay baat ya tëxërëm ba bët gi ne ko demal mandat ñëw ma déglu oh, saa borom ne waaw waxtu dem léegi mu jot eh, déggoo ñu ne Thierno ko jiitu woon fa Ndar dem fay nduróo gaynde gu ngar tàng fa aw tàngaay wu tar ñu aan buy dellu si nan ko kar maam Thierno mat mat gu toll nii. maam ba mu dellu soo ne ko. Ah? doo seen morom wane nga ko. waaw la nga ma waxoon fàttewu ma ko te samay wax ñoom xam na nañu ko du ma ci yaatal sax di ci sori. Ah. maam daan nuyool. gars yi nañ def ndànk ci am wala mi mbir la. <laughs> nuyool ma doon naan café rek. Eh. nga café gi buy booy bu ma laajee ay kafe wala café noir ñu ma indi indile ci kafe Touba daf ma yëngal. Ah, daf ma yëngal nuyool nuyool ma joxe kaas gi <laughs> nuyool. waa mais <laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum euh, Aba mm-hmm. ñuy nuyu ñëpp. moom maa ngi lay nuyu di euh, soxna yi di leen jaajëfal di leen wax ne leen kontaan nan mm-hmm. aba euh, ñu jégalu ci retard bi ah. gannaaw yow miis nañ ko ci yow. Ah, du ci man tey moom du ci man. réew mépp miis nañ ko ci yow. ah, ah ci ñun la. la. non moom du ci <laughs> laa yëg <laughs> mais mbay nuyu waa Thiaré ah. di Yëmbal euh, di nuyu waa Cambérène dëkk bi yëpp maa ngi leen di nuyu. Mm-hmm. képp koo xamee yaa ngi toog sa sa salon di seetaan. Euh, ñu ngi lay béggee di la ñaanal jàmm mhm. di wax na ñi nuy béggee fépp ñu ngi leen di nuyu mënuñoo lim ku lim juum fi ñu toll ci réew mi aba mhm. mënatunoo lim mhm. waaw foofu lañ toll émission bi toll na foo xam mënatunoo lim fi ngeen toll ci réew mi waaw foofu lañ ay ñaw toll ci armoire yi ñu sant yàlla lépp kenn mënu koo lim ñuy sant yàlla ay lii dafa neex yàlla bu mu jeex ma ko joxoon ay lii dafa neex yàlla bu mu lii ko joxoon yàlla jàmm yaa euh, Mor moo fi jaar Mor moo def nii dëgg la moom ak seex Jong ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. kon donc démb euh, mag la woon tey rak. loo xamul kañ lay jeex. waaw boo ci Pape Samb nee na boo ci nekk nay neex. waaw addina addina amul solo Aba. Lamine Lamine maanul sama yëf. Aba sa nekkul ci man. Mhm. Aba Aba. addina mhm. amul solo. te it tey tey lépp sax maam daan kenn mënu ko wax ci plateau. waaw lépp kenn mënu ko wax te dëj léegi dafa neex lool. moo tax feree ne par yenn saa yi bu ma bëggee wax nga ni ma Aba. waaw parce que ah, parce que am na wala tey bàyyi nga ma wax tey. léegi booy <laughs> xam nga danoo euh, danoo jëloon euh, na def. mais li ma lay wax nii waa koñ ba mën nan maa seede léegi jëlatul na ngeen def mhm. abaa bàyyi ma moom lañ jël yàlla xam nga <laughs> léegi booy koo wax na abaa bàyyi ma koñ ba léegi koo wax mu ne la abaa bàyyi ma xam nga xam nga Pape Samba mi réalisé mhm. dalaa commencé miin wala xaw ma daf laa commencé yàpp mhm. booy ba ñu invité woon démb invité wuñ ko tey Pape Samba fexe ne ba woo ko tey Babacar mooy ñëw après mais Pape Samba fexe na ba woo kook ne avant Babacar di yee kook xam nga Pape Samba tamit tooñ. waaw mais eh, ah. xam nga euh, Pape Samba. Ah. man joto ma ak moom dara. <laughs> ah, ah rek parce que Pape Samba parce que man li ma dal démb. ah nu fekkee damaa nar a dalat ah ma teel a léegi tënk lépp abaa dama bëgg tey nuyoo lépp tënk ka ay problème parce que li ma dal démb. dem naa ko tëdd kooku génn naa ko bi. non kooku moom bu fekkee abaa non waaw kooku bu ñëwee dina métti ci man de. mais tey bi mu mujj nuyoo tey euh, dafa xababal mm-hmm. Euh, Mamran Moumi tey dafa jël temps na ci quatorze régions yi ne ci réew mi yëpp. Ah, ah. waaw engrais la fa nekk ñëpp siyaar leen. Ah, te yow yaa ngi commencé nuyoo maa ngi boobu ba tey maa ngi lay dog damaa bëgg nga nuyoo fi ñu toll nii. waaw waaw waaw waaw bu nu nuyoo mm-hmm. nuyu caare mm-hmm. di wax ne caare yi saa su nekk bu nu waxee rek dañuy feddali suñu cofeel ci ñoom. ndax fa mm-hmm. leen jóge yëmbal. maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax Cambérène Yoff dëkku Lebu yëpp maa ngi leen di nuyu. di bëggee ñi nga xamante ñoo toog seen télé di seetaan. di wax ne Aba mbir mi toll na foo xamee comme ni ma la ko waxoon sànq

gis nga àddina mhm. loo mën a mel ci àddina te doo bëgg day feeñ ci sa yaram dëgg la te ñi demoon kenn ñëwaatul wax le fa ne nañ bëgg foofu la réew mi toll nañ dund waaw parce que dañu léegi léegi ah gars yi terewul leen a def dara dañuy sinap <laughs> waaw dañuy wax ne euh, maa ngi ñu kaani may leen ñu kaani waaw may nu kaani eh ana ñi bëgg a mbaxal <laughs> eh ana mbaxal mi yooyu la ñuy laaj ci dëj yi dëgg léegi dafa neex dëgg la waaw booy dund da waaw man eh, damay dem eh, yàpp taw eh, waay yow si gindi nga yow sa ñàkk waaw dëgg la <laughs> eh bi amul yàpp aba dëgg la man dama lay wax benn affaire man da sax euh, damay rus léeg-léeg sax mënatuma dem ci dëj yi su ma la ko waxee billaay damay dem ci dëj mais ñu naa neen def daf may dal dugg ci dëj ñu naa neen def maa ngi nuyu ñu may woo te deew ñu ma dara maa ngi leen di gërëm di leen sant léeg-léeg awaa ah, dañ am lay woo duñ la doyee dara <laughs> ah. waaw dem waaw <laughs> waaw maa ngi nuyu ñëpp parce que cofeel moo demee noonu dégg li ah. maa ngi nuyu ñi may woo da duñ ma doyee dara waaw dama leen di gërëm parce que cofeel moo toll noonu waaw da ngay woo nit doo ko doyee dara ndeysaan waaw damaa dugg ci dëj. waay dimbali leen ñu dimbali leen ñu rek ngeen baal ñu ah. ah. waaw nit ne ma may ñëw maa ngi am kersa ak fi ma toll man bugguma sax nii may dugg ku nekk naa neen ma ne ko waaw bàyyi leen li ngeen def yéen itam <laughs> naa tey yàlla mi nu sàkk ma ne ay. léegi dëj yi nit ñi defee duñu ko mi eh, am ay nit ñu lay woo allo Mamran ça va nga fekk. waaw non del na ma démb aba waaju dëgër. may nelaw sàngu mu ne ma kooku la Mamran ma ne ko waaw mu ne ma. waaw may na ko boog na ngeen ma ne ko damay nelaw mu ne ma waaw may na ko rek ci biir mbàjj mi abaa laa nekk na naan da sànguwaat ma ne lii métti na waaw kuy nelaw sax doo ko bàyyi mu nelaw waaw xam nga man li ma tànn daa métti na ngeen def laa tànn ma may nelawee gi yëpp dañ ma koy bëgg lépp mën nga fa ne waaw sonn naa trop fi toll nii yow it na jëlee tey maam daan fu mu niw nuy dee jot tey rek damay arrêté donc il faut que ñu xool suñu bopp xool temps bi ba pare am na ñaari orchestre waaw non non non suba damay xëy liggéey su liggéey da ngeen nelaw du ngeen ma ray wala bu ngeen bëggee minuit ma dem bàyyi leen fi yéen ngeen ah, ah, ah. daan di wax di damay la moom des wax ba sama neer day metti ndeysaan mais loolu ak cant la naa dem ma ne ko maa mu ne ma waaw waaw naa de ma ne ko waaw ay li na ni laa koy jàpp ko nii. waaw waaw ñaan ko waaye nag ñu ngi leen di sant leen gërëm parce que euh, loolu loolu aba <laughs> <laughs> dama yàlla parce que àddina moo tëdd noonu cofeel dafa dafa yaatu waaw ma leen di ñëpp ñi may woo ñëpp ma bëggee maa ngi leen di gërëm di leen sant leen wax ne àddina moo tëdd noonu doomu aadama cofeelam kenn ku ne ak cofeelam fi muy toll mm-hmm, mm-hmm. waaw man damay gërëm ñi nga xamee rek ñoo bëgg Mame Rane mm-hmm. ah, parce que li léeg-léeg mu woo la ñaanal la nga xam ne kii li muy wax ci xolam la koy tibbe kon dañ ciy sant yàlla di nuyu mag ñi yëpp waaw di nuyu mag ñi man mag ñi aba Euh, dama leen a bëgg trop parce que dañ may bëgg lu bëree bëree mm-hmm. bëri mm-hmm. léegi rek bi may ñëw benn mère daf ma woo ne ma dama feebaroon mais sa audio yi lay déglu sama doom yi sax mën nañoo seede lii bi moo doom yi ñëw ne ma suñu yaay ji day yow rek lay déglu loolu doon loo xam ne dama ci kontaan waaw maa ngi ciy maa nuyu bu baax a baax di sant ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp en tout cas daal euh, ñu ngi nuyoo euh, te émission baa ngi dem donc euh, nit kii moom kii feeñ mënoo fay ñi toog di la seetaan déedéet comme ni ñu koy waxee wolof Njaay nee na kii feeñ ki ko seetaan la bëgg waaye kii wax dafa bëgg ki koy déglu donc ñoom ñi ñuy seetaan mënu ñu leen a fay ba tax na ku envoyé SMS rek bu ñu ko mënee lire dinañ ko lire bokk na ci nga xam ni Njaay Diop agent Sénélec waaye Pa Assane jeune culture yee ma nga ca Tiwaawoon moom tamit Euh, Yaya euh, moom ñoom ñoom ñëpp daal ñu leen nuyu ah c'est de la part de Prési ah Prési euh, mooy sunu mbokk ma nga xam ni mhm. war ñoo tax sax bu ñu toogee nuyoo balaa ñu nuyu kenn ñu nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom fi ñu dëkk waaw waaw ci ca Lagrose waaw waaw waaw suñu waa suñu waaja doon suñu dëkkandoo yi waa ah. mhm. ñu ngi leen di nuyu fi ñu am kër waa fi ñu am kër waaw dëkkandoo ak xalaat ah, sunu ñuy waaj a dëkkandoo ñu ngi leen di nuyu waa yàlla mën na lu ne Adja ah, kii Abba Adja Fat Fall Dagana maa ngi lay nuyu sama mbokk taalibe sama mag ju baax jooju maa ngi lay nuyu ndax Abba waa may bëggee kon Adja Fat Fall jox naa waa Dagana gépp Abba Abba la may wax moom Abba Abba la may wax Abba sama mbokk taalibe yëpp maa ngi leen di kontaane waa Daaru Musti maa ngi leen di ñoom Mam As ñoom Cheikh Bari ñoom Papis Faye ñoom Dieynaba Kaba ñëpp rek Mohamed Mbaye Kulim Dioum maa ngi leen di ñoom ñëpp di nuyu ba nuyu sëñ bi maam Thierno borom daaru maa ngi koy nuyu ñun amuñu lépp maam Thierno amuñu ko lépp yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na la fi yàlla bàyyi nga gën fee yàgg lool nga ni loolu waaj wax nga ni waaw li ma doon wax mooy di nuyu sama grand frère mhm. Mamadou Silla Séri Mbène kooku Aba dafa sori ci man. waaw Mamadou Sylla dafa sori ci man doon nit ku baax. Ah. kooku sama lépp la. bu bu baax a baax kon yow gisoo ko. gis naa ko de montre bi kon yow gisoo ko. gis naa ko de verre yi kon yow gisoo ko. bañ a gis yaay bu yàlla dee ñëw bu yàlla ah, nee waaw Aba ñun nag waaw ku ne déedéet ku ne déet yàlla dalay detteel léegi Aba bàyyi ma gis nga bouchon Massédi. bouton Massédi ah? ndax yaa ngi koy gis. Aba bàyyi ma montre ba ndax yaa ngi koy gis. maa ngi koy gis. yaa ngi gis verre ya lii la la xaaki ci ay yéen a bokk club. léegi léegi nañu dellu ci Momy Seck moom tamit bu daal di ñuy euh, yëngalaat ba ca kanam a nu bégaat rek ay ci ay lu neex du doy nan dellu ci muumi ay ci muumi yëngalaat rek nan ma may retour may dégg sama bopp loolu laa bëgg man mii sax maa ngi ko doon waaj ñaan sa waaye ak bëgg temps sànq ba tey nii lay def lu waay tëgg mu ne ko nii mooy ki sol lu zone bi xam naa mooy ñi nga xam ne seen seen waa koñ bu ñuy dox sax dañuy baaku mooy ñu naan eh waa mais sa waay yaa may woo tarta mbàqu ndëg ah ma ñëw ah, ah, ah, la ay ci muumi a ci ay ci fi nga nekkoon baax na aca kuy togg fàtte xorom boo sottalee ko këppi xam kuy togg fàtte xorom boo sottalee ko këppi xoolal sama yaay Salim Mbaye moo ma waxoon foofu la sama sang baa ma booleeg yow sa séeri booy ma tenda mi ci jolo la may ma jigéen seen te du ko dindi ee dinaa la door ba dam la te du ko dindi xamoo ne ba xut yi ku tool te xut ya mu tàgga nga ne néegu yaay maa la man kenn du ko wax xam ne bu ñu ñëwaatee da ngay ambiance ñu daal di jël beneen groupe bi nga xam ni yaa ñu ngi ci kaw di xaar wala ñu ngi nii sax toog di xaar booy yi maa ngi leen di nii nii tabaarkàlla muumi bu ko defee bu nu paree rek yaakaar naa ne beneen groupe bi mën nañoo préparé wu muumi daal di euh, ànd ak moom nu tàggatoo ak mi jël beneen euh, group bi am na solo euh, di souhaiter un bon anniversaire euh, di kontaan bu baax a baax ci El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye ah borom Diaye borom Marseille doom yaayu El Hadj Keita El borom camion yi El Hadj maa ngi lay kontaanee bu baax a baax El baax baaxkat bu mag bi nga xam tabaarkàlla yàlla na jàmmam yàgg waaye maa ngi nuyu sama yaay amigara Garaslo ah di nuyu ki nga xam ni moom mooy Soda di chéri Fallou ah yaayu ki nga xam ni moom mooy Aw Bousso maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax ki nga xam ni moom mooy Soda ah di taalibe ki nga xam ni mooy Serigne ah. taalibe sa El Hadj Baara Fallilu maa ngi koy bëggee bu baax Soda taalibe El Hadj Baara Fallilu ah Xaadim Gueye euh, chéri Soda Xaadim euh, taalibe El Hadj Baara Fallilu maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax Xaadim sama yaay sama yaay Soda Bousso sama maam la Soda Bousso sama maam la waaye sama yaay Ami Garas moom Serigne Fallou rek la bëgg Serigne fallu rek la yaakaar Soda Bousso sama maam ah di mag ci Pape Cheikh waaye di sama maam man mii maam i Wally Ballago Seck soo Bousso nee naa la bu Koffi Olomidé doon ñëw ci réew mi ku Soda Bousso li Covid di def ci réew mi ah, moom lay def fii mm-hmm. su fi day waxtaan wut ku koy sóolal mm-hmm. Soda day waxtaan wut ku koy wayal taxawaayu Covid rek la fi taxawee dëgg la yàlla na yaa ngi ay nekkoon yow sànq yaa ngi kaas lan nga doon kaas waaw dama raakaaj woon ah, da ngaa yëngatu moom mi fa mu génn dafa nooyoon man laaj la ndax da ngaa xam kii nga ni ma lan. ma ne la moomi la tudd moomi la tudd <laughs> ma ne ko moomi waaye tey sa yaram tàng ndax da xam kii ma ne moomi la tudd <laughs> moom maam daal moomi la tudd waxoon naa ko kii tey dañuy def ceeb. Mhm. mais Pape Samba xam nga day xëy def lu ko neex. waaw nee na tey sentir ñu def ceeb. Mhm. li mu sentir mooy nu waxtaanee actualité. Mm-hmm. waxtaane li xew ci réew mi mm-hmm. xam nga lu ko neex lay def dafa mel ni indi na ceeb bi mais nee na bëggul sax nga waxtaane ceeb bi waaw baax na kon ba léegi waaw waaw neen dafa bëgg nga waxtaane euh, li xew ci réew mi euh, dinañ ci ñëw euh, parce que réew mi dañoo gis ni weerante gi moom mi dafa bari waaw yàqante gi dafa bari lool <laughs> waaw waaw ah, yàqante gi bari na génn say yëfi nawle waaw xale say bagage si nawle mm-hmm. abba mm. xanaa xamoon ne fi mu toll nii ku du takk doo tekki ku du takk doo tekki olof njaay la de te gis nga dangay sangu balaa ñu laa sang. dëgg la. koo ci gis muy dem rek ndiggam a nga fees dell ak i loxoom ak i përëgam ak i tànkam. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. ndax fit u dem. dëgg la dëgg la. koo dugg tey këram am na fa benn roq bu mu def ay butéel. Hmm. gëm yàlla gi sax day daal di bëgg a dëgg la de ndax yàqante gu métti gi. Hmm. dëgg la de ndax yaa ngi ragal ne fi mu ne bu ma viddee dem. Hmm. nit a nga sa kaw. jëwul lu yàq la. yàqal la yàq goo xamante ni nag moom amalu ko benn rendement. dëgg la dangay dem tey ci couturière boo dendal da ngay yàq couturière ba ndax da ngay maa moomee ngay dugg maam raana ngay dugg abba ngay dugg. loolu borom tur lan kii mi ngi may raw. ñu naan kii ngi doxle ñu naan mi ngi dox le daal dem yàq ko galgal ko. Mm-hmm. dangay gis kuy jaay tey nga den ak moom place. dëgg la. muy jaral xamoo lu tax muy jaral ndax yàlla suñu borom mooy seet la ko neex def ko dëgg la de ko ko neex mu la yow mi yaay jaral tey wala yow mi yaay meer ci marché bi dëgg la nga gas suul yàq dina xëy suba ba ngoon dootu jaral téer yu bari yàq nañ leen. dëgg la góor yi ñu bari yàq nañ leen. rafetul ñee ngi def bii ñee ngi def bii. seen naw leen leen yàq. dëgg la de. du seetatuñu yàlla te yàlla am na de li ma naan billahi yombal xiyaam gumbaa koy jiital la fañ topp ca rang du dox de du dox de yombal xiyaam rang du dox te ñun rek ñoo fay bàyyi suñu bopp. dëgg la de. man moom it de yàlla ma yàlla suturaal ba def lépp lu bon. suturaal ñun ñun ñi tamit. suturaal ñun ñëpp. waaw ñun ñi tamit suturaal ñu ah maam. barke xaadim réew mi euh, Euh, dama bëgg ñu waxtaan mais man saa bu may wax damay bëgg li may wax may indi loo xam ne waxoon nañ ko. dëgg la teg ko dëgg la. parce que da wax ne dëkk bi fi mu toll ak euh, nit ñi li ñuy dund léegi. Mm. kon il faut ñu jëlee démb. parce que man ci démb rek lay wax. dëgg la waaw boo indee démb rek doo juum. Mm-hmm. parce que boo déggee am na way boobu dafa tënk lu bari. suturooy yaay suturooy boo ko amee ku la gis sopp la ñaanal la nga dem xam nga loolu <clears throat> dafa doon loo xamee boo ko déggee euh, mën naa tënk ci yow ci sa dund parce que sutura bi nu demee ba nga xamante ne sutura si mu ngi bëgg génn ci réew mi rek mm-hmm. loolu bëri yàqu dëgg la parce que gis nga aba bu njëkkoon mag ñi ci sutura rek lan àndee woon mm-hmm. ci sutura rek lan nekke woon boo daan dimbali nit da nga daan bàyyi ba suuf sedd nga ñëw dimbali nit te yàlla rek tax. dëgg la bu fekkoon ne da nga nit dafa nekkoon ci naka su dul noonu même ci wàllu sëy dañ ko daan jubbanti ci jubbanti boo xamante ne ca pénc moom pénc moo amoon gis nga pëlis yi amul woon bu njëkk daawoo yóbbu nit pëlis parce que bala ngaa àgg ci pëlis mag ñi dañ ko daan lijjanti si pénc mi ñu toog ñu waxtaan juboo jubaat la leen kenn ku na dem. wallaay dëgg la booba kilifa am na ci réew mi. Mhm. booba gis nga kër yi ba mu yàqoo la bëri la la lu bëri yàqu. parce que damay wax korook ne mën nga doon dugg ci kër fekk fa benn baat moo fa daan am parce que mbokk dafa woy bu njëkkoon benn baat moo daan jib ñëpp ànd ci. waaye léegi euh, fukki baat ci biir kër. kër du defaru ku jigéen ki day wax. waaw ku góor ki di wax. ku ne bëgg a wax rek ku góor ki di wax. waaw ku ne ku di wax seeni doom di wax. waaw ñëpp di joxe xaaral paa bi nga daan dégg. wallaahi xaaral paa bi ñëw. Hmm. léegi yooyu amatul. te gis nga doomu aadama mag ñi ci sutura rek la nekke woon moo tax seen dund lépp dafa nekkoon ci tranquillité mhm. seen dund gi doon dund dañ ko dund euh, dañ ko doon dund ci sutura ak euh, nëbbante ay ayib parce que yàlla dafa bëgg kuy suturaal doomu aadama mhm. mais léegi da ngay euh, gis Sénégal li fi am léegi yàkkamti na laa gis yow nga def naka su dul noonu ñu weer la maanaam dafi mel ni loolu boo ko defulee yow Euh, doo am jàmm. déedéet déedéet te nag te nag. Mhm. ñiy werante mooy ñaar la ñoo xam dañuy séq dara. waaw muy rafet. wala muy neex nu nëbbalante. waaw bu ñaawee rek. waaw nu werante. waaw parce que parce que. jëwante tàqale ko naxante. yaa ngi dégg. waaw. parce que mhm. xam nga. Mhm. Hmm, dama lay may ci benn waay comme nettali dafa am ñoo xam ne mënuñoo téye. waa ji dafa ànd ak waa euh, copain bi ñu dem. bi ñu demee baal leen ñu waaye yéen tamit ñaari waxtaan mënu fee am mbaa juróom dimbal leen ñu. bi ñu demee bi ñu demee mën a tooñ nag yéen mën ngeen a tooñ nag. ñu rasta <laughs> waaw bi bi ñu bi ñu demee. Mm-hmm. mu ne ko bu ñu demee ca pénc ma. te waxoo ko ñaar deux cent mille ngi nii bu nu àggee nga jël. Mm-hmm. léegi bi ñu ñëwee ba ci pénc mi. comme nga xam nit ku bëgg a nettali rek ak koo xam ne mënta téye mhm. waa ji ni mu toogee ci pénc mi mu mel ni kuy matu aba comme euh, maanaam téye dara manu ko mhm. toog ni mu toogee di matu di matu manatul manatul dara jékki-jékki xamatul nu muy def mu daal jékki deux cent yékki deux cent mille yi nag teel sa xaalis manuma kaa muñ bàyyi ma ma wax ndax ma am jàmm waaw parce que maanaam dama lay wax ne la waaw day am ñoo xam ne maanaam euh, bu njëkkoon bàmmeelu biir da ko daan dégg ni day dem yóbbuwaale loo xamante ne nii tey maanaam euh, bàmmeelu biir la daan doon mm-hmm. mais léegi ñi dalay yàkkam comme ni nga wax sànq day yàkkamte day xamal dara yàkkamte jàppante ak yow ba weer la weerante bi mel na noo xamante ne ci àddina mm-hmm. kenn xamul lan la kenn xamul lan la te gis nga lépp loo gis ci àddina mm-hmm. lépp loo gis ci àddina na nga xam ne bis dina ñëw ñu teg la di wax ci yow ay seede mm. te lépp loo xamante ne ni bu ëllëgee danga ko fiy bàyyi muy am nettali rafetal ko bay si sa dund dëgg la parce que doomu aadama àddina du dara yii yëpp ay détails la chaque jour mu wax ko mais Sénégal dëkk nañ ci dëkk boo xamante ne nii noo léeg damay wax ne dëkk bi nu kaa séddoo kenn ku ne jël sa wàll dem parce que problème mooy que ne yow da ngay gis da gis ay nit ñoo xamante ne dañuy nekk ci nekkin boo xamante ne yow da nga naan lii mag ñi xamuñu ko woon abaa lan moo ko fi jar parce que yii yëpp ay ay ay àddina amul solo yii yëpp ay ay mbir la yoo xam ne dañ koy nettali ay détail la nit boo ko xamalee dara da nga koy waaw da koy suturaal te yàlla rek tax mais loolu amatul loolu amatul mais loolu noonu fi maam daan daaneele foofa laa bëgg a dugg mhm. nga làmbaay ba tey laay dugg dëgg la soo demee ñu naan la euh, guy ndëggee gaali mhm. sumpas ngàññ mhm. kaddu palukaay ak wéeru gën ak kan kàmbug jamono loolu laay dëggal gis nga bu njëkk boo demee làmbaay ba tey guy gaa nga fa bu la daan fal buur nga war a nekk buuru làmbaay dañ lay yóbbu ca kàddu palukaay ba tey kàddu gaa nga fa soo demee ñu fal la fa pare daan lay yóbbu ci sumpas ngàññ sump la ngàññ la fa ngàññ boo ko déggee ñi nga xam ne dégguñu olof bi mooy teg la fa wax la li ñuy bëgg ak la ñuy bañ mhm. ne la ku xewle na nga fa dem ku deele na nga fa dem wax la tamit ne la bul tànqam lu dara loo xamante ni ñun ñii la fal nekk na ci ñun muy jàmm muy muy lu matti doon loolu mooy buñ paree buñ paree nag daal la yóbbu nag ca wéeru gën ba tey euh, wéeru gën gaa nga fa wéeru la fa nag ne la tey gën nga yaa gën ci ci ci ci làmbaay. Mm-hmm. yow lañ tànn. yow lañ tànn. gën fi léegi gën nga. waaw bu fàttali dañ laa tànn waaw bu fàttali dañ laa tànn. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu su suñu pas ngañ ga. suñu paree nag daan ne la nag kàmbug jamono ji ñëwal kàmbug jamono ji boo ko gisee tey kàmb gu mag la mag a biir làmbaay. booba suñu maam ñun ay ceddo lañ woo ndax boo nee lambaay wax ñorum lambaay mhm. soo nee lambaay waa ñorum lambaay eh, ñorum lambaay viski lañ daan boole ak ñorum lambaay moom mënu ñoo cee ñàkk ma ma dem ci ndax foofa dama faa <laughs> mhm. da ngay woo naar ci buxum guxum sow mhm. foofa bu ma fa la samay maam dëkk mbajaanuk cadda fa la sama yaay dëkk kon man jaareem laa juddoo waaye dem naa ba lambaay xam samay maam lañ fa bàyyi ba nee ñorum lambaay booba da nga daan viski nga daan boole akum soow wala ak meew waaye boobu man rek dëkk bi yëngu. Eh. soo mandee rek bi yëngu. Eh. waaye na Abba yaa ngi reet di bëgg noonu ndax yow yoo yoo lay joxotaan fi mu ne. waaye na bañ paree sëñ Bamba dañoo defar. dëgg la dëgg la <laughs> ci sëñ Bamba. Mm-hmm. kenn du sa bu bëggoon morom sax doo ko am. Mm-hmm. dañoo defar. Mm-hmm. dimbali ñu ñun. ndax sëñ Bamba bi mu ñëwee ci may ko lim ko may daa daal ne gees na gees dem xool ña dëng mu ne naa leen defar. dëgg la moo tax sëñ Saali bu ne bàyyee leen ma xale yi. loolu mën naa Seex bee cot na bàyyee ma ndaw ñi. jaar ci tànk sëñ Saali sëriñ ñam ba loolu mën naa nekk dëkk ba ñu paree tamit mu daan ne defal kaay ma defal leen mm. daan ñu kiix jël suñuy maam waa Lambaay ñun waa Lambaay mm-hmm. jël suñuy maam dimbali leen ne leen dem leen ngeen bàyyi génn ñu ci ceddu génn ñu ci njarug Lambaay génn ñu ci leneen loo xam ne nii jërta wax tele waaye ñun ñun waa Lambaay xam nañ ko ba ñu paree nag mm-hmm. mu daan ne sëñ Mamar Maane sëñ Babacar Ndiaye Thiergane sëñ Aliou Diouf Lambaay yee ko daani xanaa war nga ko dégg loo gàtt gàtt dégg xam nga ko mm-hmm. ndax tubaarkàlla ci waa kër sëñ Bamba nga bokk mm-hmm. sëñ Mama booba euh, tubaab bi tëñ tanoor la tudd mm-hmm. boo paree da ngay tàggatoo rek ah bal ma àggale émission bi nii booba tubaab bi tëñ tanoor la tudd da daan nax suñu maam yi ndax booba bawal bawal dañ naan am na xel waaye booba xel mi sax des na tuuti xëy na li xel mi tuuti sax suñu bambaa ko def ndax xam nga ne ceeb ko ci nekk nekkoo ci leen lu neex yàlla kooku sa xel des na dëgg la ah, day dugg ci néeg tëju def paanu deretam teg paakaam da ciy sëpp bu sëppee na ana ñu ànd ak suñ Bamba ku ne maa ànd ak moom mu ne la duggal boo duggee mu génn deret ji ne ñu ko wax rey naa leen fekk dañ doon nax waaye ci suñ sëñ Baba Ndiaye sëñ Babacar Ndiaye Thiergane sëñ Mamar Mané sëñ Àll Diouf Lambaye bàyyi sëñ ñu yeewi lambaay ñu yeewi lambaay ñoo ñoo yeewi lambaay ñoo ñoo ñu may indépendant daal di ko ñun sëñ Bamba lañ guddi guddi Touba jëm dëgg la ci suñu mag ñooñu dëgg la ci moomi jërëjëf nan doxal en tout cas daal bu xale yi dee xool ci mag ñi di xool li fi mag ñi bàyyi woon mais yaakaar naa ne fi ñu toll li gën a bokk na ci wut lu yomb ak bëgg lu yomb mamran xale yi bëgg nañ portable yi mu mujjee génn bëgguñu koo liggéey dañ koo bëgg di ñaan ñu leen koy may maam daan xale yu góor yi am na ci ñoo xam ne ay rancunier ay rancunier lañu dañuy mer di denc te bis boo leen wanee ginnaaw lu la xamal mën nañ leen ko yàqal ñëpp yemuñu tey damay jënd iPhone daal di la koy may su ma ko mayee xale bu jigéen bi ay iCloud bi man dama koy téye iCloud bi mooy li nga xam ni yow loo ci def day ñëw ci man nga yëg ko nga wañ ko yëg nga wéet yow kese sinap sa bopp wéet yow kese filmer sa bopp mel nu la neex filmer sa bopp day ñëwaat ci man tey bu ñuy ànd man a yow muy neex photo yi maa ngi waaye bis bu ñu demee ba man a yow ñu am problème photo yi mën naa ko génne daal di koy utiliser ci yeneen i fin mën laa yàq am na ñoo xam ni photo wu ñu envoyé ko kenn te ay victime la ñu ci ay photo yu génn moo tax maam daan dañuy indiwaat ci nit da ngay gëm sa bopp loo am nga wutal ko sa bopp tey téléphone bi nga jëndal sa bopp mhm. dem ca kay defar téléphone jox ko sa iCloud mu mhm. dugalal la ko mhm. jox la sa téléphone nga làqatu dugal sa mot de passe foofu sa doo ca def benn foto mu génn doo ca def benn vidéo mu génn waaye ki jël téléphone jox la ne lépp defal naa la ko la koy jox mu yomb ngay sanabe fu la neex di estati fu la neex di filmer fu la neex photo yi dana dem fu la neex te doo ci xam dara ndax jigéen ñi bàyyiwaat xel ci seen bopp te def très attention waaw mais xam nga àddina comme li nga wax nga doomu aadama lépp mu ngi tënku ci ngor. gis nga dafa am loo xamante bu bu nekkee ci yow da nga koy jomba def sa bopp. Moumi mën ngaa dem mën ngaa dem Moumi dañuy ñëwaat ci parce que parce que euh, nit ki li nga jomba def ak li nga rus a def bokkul. dafa am loo xamante ne fekkee da nga kaa rus a def man dama laa rus yow abaa laa rus. su ma gisulee abaa dama koy def. Mhm. mais su ma jombee def dara. su ma gisee abaa ak bu ma gisul abaa yëpp jomb naa def loolu mooy jomb jomb ak rusa def bokkul ñaari facet la te abaa dama dama bëgg bu ñu toogee ñuy wax loo xam ne am na ñoo xam ne dañuy toog seen salon di nu seetaan te émission bi toll na leen foo xam ne am na ñoo xam ne waxtaan bi sax lan dañ dañ dañ leen dañ koo bëgg trop parce que euh, dafa am loo xam ne da nga koy indi wax leen démba nii lañ doon dunde mm-hmm. tey dund bi ñu dund nii nan xoolaat mm-hmm. parce que lépp loo gis ci àddina bu amulay sutura rek tegal ci suuf gis nga nit bu fekkee ne danga koy may di ci séntu bu ëllëgee boo leen amee problème. loolu du ak may. waaw te loolu dafa bari te euh, Sénégal nanu xale yi nan nan nangoo liggéey. Mm-hmm. gis nga liggéey. mooy mooy mooy soxali am réew. Mm-hmm. liggéey mm-hmm. réew yi fi développé yëpp. Mm-hmm. développé wu ci leneen lu liggéey. donc nit ki ak lu mën a xew ci àddina rek boo gëmee sa bopp doon jàmbaar di liggéey. ba yàlla def nga yëkki sa sa jox ko nit. na nga xam ne ngeen ànd ak ngeen bañ a ànd yëpp jàppal ne loolu teraanga la woon bu jugee ci yow ñëw ci moom. comprendre nga mais du da koy def ngir que ne da i di ànd. boo leen taxali ko nga koy. santaas waa réew mi waa réew moo moo nekk tey hmm. boo gisee ma wax la koroog fii ne mbëggeelu démb ak mbëggeel léegi bokkul parce mag ñi bu njëkkoon ci nekk bi ñu doon nekk dañ doon nekk ci nekk bu naturel hmm. dañ doon dund dund boo xam ne dañuy dund te yàlla rek tax hmm. xamuñu woon lii mais doon def ay tam ay ay ay ay ay <laughs> euh, am léegi <laughs> moo nu sonal moo <laughs> téléphone aba bàyyi ma aba ma man tey bëgg man damaa bëgg waxtaan parce que ah, fi mu ma bëgg dugal aba déglu ma mamran xam nga xam nga tey boo bëggee indi ci conférence loolu du ma ko nangu te réew mi di la mamran que mamran nu bëgg parce que tamit loolu mooy euh, loolu gën a neex ci réew mi ñëpp di ko jàpp mag jàpp ndaw ñi di jàpp <laughs> donc mamran xale yi dañuy fooy ñun ñëpp xam nañ ko wax nga ko <laughs> waaw man waaye bàyyi moom nañ demaat ci movie bu ko defee nu tàggatoo ak moom euh, ñoom Babacar daal di ñëw yaakaar naa ni fi ñu ton nii waxtu wee ngi avancé mu mi nan dem rek bu ñu tàggatoo wee rek après ñu jël beneen groupe bi nga xam ne ñu ngi ñuy xaar ay ayca ayca